voilà on est retour euh, ci euh, seen plateau seen show ñu ngi ci seconde partie bi imam euh, ñu ngi doon wax ci yokkute njëgu courant bi mu mel ni que peut-être kaddu yi nga xamante ne nga jëlee foofu convaincre na la mais gis nañu ñi ñoo xamante ne convaincre lu leen ñoom ñu ngi ŋàññi yokkute bi ñu wàccoon ci mbedd bi di manifester ñenn ñi ñu jàpp leen yóbbu leen fële ca ca kaso tey nan nga gisee loolu. voilà donc pour pour rectifier un peu li ma jëlee ci Senelec. du lu ma convaincre. parce que xaw ma aw ma les euh, éléments. Euh, li ma ko euh, mën bu nga baal ma mais bu ñu déggee kaddu yi nga yëkkati sànq on a l'impression que yow da nga jàpp ni que Sénélec ñoom ñu ci dara état bi moom moo peut-être. voilà lépp côté état bi la. ñun nag dañu am habitude def bañ a def amalgame boole yu bokkul. Mhm. Sénélec damuy fonctionner la mu am bon problème ya fa am du sama problème. Mhm. du suñu problème ñun suñu problème lan la. mooy que ni mu posé woo mooy que Senelec yàgg na laaj état xaalis. yàgg na laaj mais aussi Senelec société nationale la. état voilà non bu ma nee Senelec non c'est-à-dire que euh, Senelec société nationale la c'est c'est un démembrement de l'État. tout à fait mais ci biir loolu dafa am une autonomie euh, en tant que Senelec nga xam ni dañ ko confier. la la responsabilité du service public de l'électricité man dama li ma la bëgg rectifier euh, mooy lan uh-huh. dugguma ci dabaawu Senelec def nañu wala defuñu def dugguma ci dabaa boobu ñun dugguñu ci dabaaw dañu ni ni mu daan demee li tax demee wu ko ki daan joxe moo joxewul wala li mu moo moo moo moo joxewul lépp. imaam ñoo bokk li ñu wax dafay def injonction yi nga xam ne FMI moom moo ko waxoon état bu Sénégal nekkoon na dindi subvention yi nu nu mel lay jëfee ba jël lépp teg ko ci ndodd askan wi. bon loolu loolu mënuma ci wax. Mhm. je sais pas mais je sais que li ma constat ñun ci mhm. ay ay des trucs factuels la ñuy wax. Mhm. li ñu gis mooy que état mi daan génnee. Mmh. génnewul génnewul kon nag état bi daan génne fu mu génnewul ñun ñu daal di ñun ñun fay leen nangam kon mmh. boo leen waxee boo leen boo leen ne Senelec yokk man leen non état bi moo moo imam tey lan moo tax kon gisuñu fédération euh, fédération bi ci marché yi nga xamante ne moom voilà donc voilà loolu loolu ñu répondre léegi ci marché boobu d' abord n'avons pas été conviés bon c' est pas euh, am na nu mu doon demee noo xam ni kenn duñu kawee ñu ñoo organiser marche mais imam ñu bokk c'est une plateforme boo xamante ne ay mouvement société civile ah, ñoom ñoo ci bokk yéen ngeen yàgg wàcc ci mbedd mi avant ñoom est-ce que war ngeen xaar ñu invité leen pour mais mais ñun ñun lu ñu mës a wàcc dem non non non déglul madame li ñu li li ñuy wàcc dañuy xam li ñuy wàcc lan la duñu wàcc n'importe quoi te te wàcc bi imam déggoon na nee naa leen euh, collectif des imams et résidents de quartier de Guédiawaye ñoo daan wàcc ñooñu wàcceeguñu ñu ngi ñu ngi ñu ngi ah. en en hibernation pour le moment ñu ngi ñu ngi observer di di di rek jouer seen rôle léegi man man man maa ni man comme que yàlla ma bind yëngu mënuma toog te yëngu ci askan wi moom la ma yàlla bindee ma ni bon euh, ñun imaam lañu imaam du bés bu nekk mu wàcc ci mbedd mi mhm. imaam du bés bu problème ñun dañuy toog li amoon 2008 suñu wàccul woon ci mbedd mi kon ce qui va ce qui allait se passer li jarul wàcc mbedd jarul pour imam ñun imam yi jaragul wàcc ci mbedd bu jaree wàcc mbedd askan wi ñu leen di fayloo ay absolument plus de 6 pour cent jàpp 10 pour cent bu jaree wàcc mbedd mi du ñu jël du ñun du ñu kenn du ñu imposer agenda agenda suñu agenda ñun ñoo koy imposer suñu bopp bu ñu mesurer baromètre parce que ñu nag population yi cinq fois par jour ñooy julleendoo xam nañu lu xew. Mhm. bon donc ñun bu ñu demee ba xam ni war nañu war a wàcc bu nu wàccul lu bëri yàqu. garaawul fu mu tollee pour ngeen. wàcc wala garaaw na garaaw na dans ma mesure ko ñu ngi euh, yokk yokk moom fu mu nekk ci consommateur day garaaw mais ma ni garaawul garaaw bu mën tax ba ay imam bàyyi seen jàkka. ñëw naan dañu dañu dañu marche mbedd àggaguñu foofu àggaguñu foofu dañu xaar ba kañ dañu kooku suñu agenda bopp la mhm. incha allah da nañu wax léegi ci beneen cas bi mhm. mooy que man bi ma bi loolu amee ma xam ne lii mënuma ci yóbbaale kàddu imaam laa jël man sama responsabilité bopp dugg dans le mouvement consumériste hmm. parce que toujours est-il que man sama sama ittee mooy fexe ba askan wi nekk ci jàmm mhm. alors dégg nañu ñu ne ñoom bu ñu fay facture weeru janvier ma àggale may ma àggale may ma àggale parce que c'est important allez-y vous plaît mhm. euh, man si sama bopp maa jël responsabilité dugg daal le mouvement consumériste parce que gis naa ni mouvement boobu am na solo ci réew mhm. te dañu ko war a sauver tout moo tax ma dugg si te pour ñu sauver ko il faut que ñu nekk benn moo tax ma dugg si pour euh, euh, réunir nu mu tuddati une fédération des associations de consommateurs qui compte dix associations de consommateurs. ah parce que tout simplement chef de l'État ci boppam moo engagé woon en mille 2008 en 2018 le 14 mars en 2018 moo waxoon son gouvernement ni que loo leen di defati lu mu mën a doon na ngeen fexe ba consumériste yi ak ñiy défendre consommateurs yi nañ nañ ci am seen baat am ci seen kàddu. kooku nag ñu ni ñun si suñu bopp la bal est dans notre camp. li mooy fexe ba nekk benn. ndax benn ministre mën wax ak téeméeri association voilà loolu moo tax consuméristes yi gis nañu ne euh, euh, ñi nga xamante ne bokkuñu ci bokk na ci maître Massokhna Kane teew na fi wax ko hmm. association boo xam ne am na solo yàgg na ci hmm. naka ngeen def voilà yéen nan ngay mesurer association bu am solo bu amul solo ñun ñu koy mooy hmm. ñun askan wi ñu tax a bépp association moo xam ne li ngay wax askan wi nga kay waxal mi dafay remonter ci base bi jëm ci kaw kooku am na solo te euh, association Sénégal yëpp bu bu continuer jàpp nañu c'est d'égale dignité. Mhm. lo li ñu li ñu mënul a nangu. Mhm. mooy association moo xam ni moom daf ni yàgg naa fi maa fi nekk kenn nekk ñu nekk sa gannaaw gis ñeneen ñu nekk loolu duñ ko nangu. Mhm. d'accord ñàkk a fay loolu on refuse ça li ñuy wax li ñuy wax li mu tontu si ñàkk fay facture bi vers bi lan voilà loolu loolu dama ne loolu yëpp. ay initiative la yoo xam ni ñi koy jël. ils ont pris leur initiative te encore une fois ñun suñu bopp dañu dañu nekk ci benn euh, euh, li tax participé participé woon ci marché bi. il faut ko. Mm-hmm. leeral bon mooy que invité ñu ci mais bu ñu ci invité wu loon sax am na nu mu doon demee noo xam dañ ci bopp. Mm-hmm. mais duñu gisee marché boo xam ne marché bi ci boppam daf dañ ci boole électricité lañu wax mais am na yeneen point yu ci nekk yoo xam ni ñun c'est discutable pour nous et on l'assume on dit que ni marché duñu euh, ñun duñu mën bu dee marche électricité kenn duñ ci jiitu bu dee marche wàcc yokk yokk njëg kenn duñ ci jiitu mm. mais bu buñ ci boolee nag marche bu nga xam ni dañuy dañuy mel na dañuy défier les lois et règlements de ce pays en disant que koo xam ni ah yéen yëpp ko gisandoo nan na nan que fii bul jaar fii mu jaar fii dem ba àgg fi mu àgg ba ñu jàpp ko tekk ci loxo yoon yoon di def liggéeyam ñu ni léegi dañuy marche pour que kooku. da ngeen jàpp ni ñooñu dañu tooñ. dañu tooñ dañu parce que tout simplement yoon bu amul ci réew mi jàmm du fi am. d'accord il faut que ñu respecte il faut que ñu am intelligence su mën a euh, mener le combat d'une manière intelligente mais dans le cadre des lois et règlements de ce pays. kenn ñu indil ay problème mm-hmm. sànq maa ngi la dégg nga ni débat wu Senelec moo tooñ wala duma ci tooñ moo tooñul du ma ci dugg mm-hmm. mais tey amoo jaaxle débat débat débat wu Senelec moo tooñ wala tooñul doo ci duggu waa voilà. accord loolu laa la wax. loolu laa la wax loolu du ma ci doo ci dugg. man la voilà man la yow tey amoo jaaxle. ci Sénélec ni muy doxee nga xam ne tey ñëpp a ngi ñaawlu agent yi nga xamante ne ni dañoo yokk mm. salaire yokk yokku mm. ba pare ñu jël ay koppar jébbal ko assemblée nationale barki des mondial loi de finances rectificative dugal na fa ay koppar mm. mais ba tey kër gi daanaka mën nañu wax ni dafa nekk ci ay jafe-jafe yow amoo ci loolu rek euh, yow déjà jàngat loolu li ma ci li ma ci wax mooy assemblée euh, euh, honorable comme ni mu ko wax effectivement la loi rectificative des finances a voté Euh, jox na jox na Senelec cent millions. Hmm. cent mille cent cent millions ah. cent vingt cinq milliards cent vingt cinq cent cinq cent vingt cinq milliards. des na def na am na lu leen des. lu ngeen lu état bi desal Senelec sax kooku il faut aussi ñu noté ko. waaw cest à kooku bor la bu nga xam ne diggante état bi ak état bi ak Senelec. c'est pas notre problème. suñu problème euh, état bi moo ameel Senelec loolu. Mhm. moo koy fay na mu koy fay moo ko xam. bon ñun li ñu mën a wax. mooy ñun ñun man li tax may man. c'est parce que kii wax léegi. moom mm-hmm. mbir mi dafa ñëw yokk bi ñëw ñoom dugg ci mbir yi. d'accord mais man mi fekk woon Sénélec en 2008. 2009 2010 2011 ah ba fin ou 2011 mu commencé jóg ah man xam naa fan la Sénélec jóge ak fan la fan la nekk et je là dama ko wax dama koy wax parce que tout simplement sama responsabilité la léegi nag waxuma ni Sénélec et bien géré waxuma ni Sénélec déedéet waxuma loolu dama ni. dama ni lii xew lii bu mu nekk élément déclencheur pour tirer sur la Sénélec nous ne l'accepterons pas et par contre Sénélec comme yeneen boîte yi am nañu war nañu xool xoolaat nañu la fa nekk ñu yubbanti ko la fa gën a baax gën ko baax. d'accord ñu ngi wax mbirum audit. am na tey jii ñu taxaw ni wax ni euh, Sénélec nañ ko saytu. audit yooyu yow est-ce que ànd nga ci wala àndoo ci. absolument man euh, c'est-à-dire que audit mooy il faut comprendre pour man je suis de formation de CRR là. audit mënoo def dara te audit amu fi léegi yaa yaa l'audit interne bu nga xam ni. justement euh, audit interne boobu est-ce que bokk na ci transparence ak mbir yi nga xamante ne ni jamono ji ñu ngi laaj lan la jamono ji di kër gi di doxee auditeur interne boo xam ni action euh, ak acte ak acte de gestion bu ñu posé ah dafay jaar ci moom pour mu xool lan la nan la tudd interne taxul may wax donc question de transparence bi nga xam te nit ñi ñu koy laaj à chaque fois foofu la nit ñi bëgg fi waxee indi débat bi mu egg foofu voilà fi ñu waxee moo bokkul c'est-à-dire que man pour man audit mënoo def société fii te audit amul audit il foog mu am loolu d'accord nañ ci audit interne euh, audit externe maintenant imam d'accord nañ ci waaw audit ñëpp xam nañ li day am ci boîte maintenant question de transparence mu posé wu ba nga xam te ni acteurs yi génn ci mbedd bi sax ñi ngi wax ni tey ji Sénélec citoyens yi war nañ gën a am hmm. Euh, ab droit de regard ci kër gi nan lay doxee foofu laay waxee tey ji est-ce que tey interpellé tey population tey pour ñu wax ñu réellement Senelec lan moo nekk ci biir loolu loolu mën na foofu laay waxee effectivement loolu je suis tout à fait d'accord audit moom mënuñu ko kenn mënu ko rejeter mais dama bëgg expliquer rek ni parce que boo waxee ni dañu war a auditer Senelec parce que c'est mais même euh, euh, kii honorable dana ma mën a wax moom par rapport à son cursus que ni même société buy dox normalement audit dafa war a am audit moom mënta ñàkk. kooku donc su ce plan. kon d'accord nga ci loolu. nous sommes tout à fait d'accord maintenant gestion réclamation yi parce que gis nañu ni usagers yi dañuy dem seen lekk di fa am seen i njàmbat di ko fa indi waaye bët bë néew na daal lu ñu leen jox ñoom dëgg ñoom askan wi. waaw loo loolu euh, gis nañu ko ñun ñoom ñoo ko gisandoo am na ba démb rek ñu ngi ma ciy interpellé effectivement am na ñoo xam ne naan la par exemple sama facture euh, euh, dañ lay faj loo temps. pour 60 jours ñëw nga xool sa facture pratiquement moo augmenté de de de de de d'un tiers ou de deux nga ñëw wax ñu la il faut nga fay il faut nga fay ba noppi ñu doog wax sa wax comme te boo fayee ba noppi mën na am tu peu de chance pour que ces réclamations aboutissent yooyu c'est des faits yoo xam ni il faut en euh, euh, relation avec la clientèle Senelec a beaucoup de choses à faire par rapport à ses, à ses avec sa clientèle des fois dysfonctionnement am aussi tamit ñu yàq ay bagage yu jaamu te duñ ko réparer loo loolu déglu loolu li koy li koy indi mooy le fonctionnement bi ñu waroon taxawoo les assureurs parce que la Senelec a assuré tous les clients bon léegi client léegi nag lu problème mooy que il s'agit pas de donner l'argent à l'assureur mais il faut accompagner ah léegi am nañu sax service d'accompagnement mais doyul il faut accompagner le client mu mën a dem ci ci guichet ci ci ci assureur bi nga def pression ci assureur bi pour mu fay ko parce que yaa yaa ko assuré. imam yaa ngi xool réseaux sociaux yi. Hmm. facture décembre bi nga xam ne le 14 ñu ci bëri ci lañ ko war a fay. Hmm. mu yéek yéeg boo xam ne te yeggaguñu ci date bi nga xam ne ci la ñu war a yokkee courant bi. waa loolu loolu waroon fay 40 000 dem ci ay 200 000. dëgg dëgg dëgg loolu dégg naa ñu koy wax mais en tout cas ce que ñu. def nga ci ay recensement am nga ci yenn yenn. information yi non amuma ci recensement ma xam. Hmm. mooy que yokk bi ñu wax. premier décembre la ñu wax. Mhm. kon bu dee facture la facture fin. décembre la wax a déedéet fin janvier la wax doon février la ñu war a jot. facture bi yokk. Mhm. képp ku jot leneen lu lu ñu yokk ci diggante bi. lan la xamal ni loolu leneen la waaye. du lan la war a def mën na ñëw ci yow. mën na ñëw ci yéen wala ñëw ci man dafay ñëw ci Senelec. Senelec il faut que nit ñi aussi am habitude bu dee consomateur yi leen fi teewal un consommateur bu am ay jafe-jafe mën na ñëw ci fédération nationale des consommateurs du Sénégal absolument mais ouais, mais, mais d'abord dans un premier temps il faut mu dem ci Senelec def réclamation ba nga xam ni wóor na que ni moom fi mu nekk nii digganteem ak Senelec il faut mu ñu assister ko parce que moom dem na ba ba fi mu yem bu demee fi mu yem ñun en tant que association de consommateurs ñu jël le wax ak Senelec parce que ñun ñuy ak Senelec am dañu ñëw ñu sa rek lii nangam nangam. Mm-hmm. fu coupé courant amul yéen ci saa rek rek ngeen yem yeggagu leen ba ci parce que yaa ngi wax sànq nu ñu la déggee am na yu ci bëri yoo xam ne ñoo ko Senelec nguuru Sénégal ki ko représenté daanaka directement mooy ministre bi ñu dénk wàllu énergie. Mm-hmm. est-ce que yéen ngi waxtaan ak moom. ñu jote ngeen gisee ak moom on a on a on a on a de très bons rapports avec lui. pas de très bon rapport en fait ci problème bii nii ko li nga xam ne moom mooy soxla Sénégalais yi pas bon rapport entre vous deux euh, euh, ma ne la problème bii ñu nekk nii nii nii nii mm. waxtaane gu ñu ci parce que moom ci boppam peut-être agendaam mm-hmm. mayagu ko ko on a demandé à la rencontrer mais ah li ñuy mën a rencontrer rencontrer mooy directeur du Sénélec ak CRC e bi nga xam ne dafa tëdd njaaxaanaay te xam nañu ñu ñooñu wax dëgg yàlla gis nañ seen xarañte ak seen jub ñàkk a wax benn kàddu bi seen biir yéen consommateurs yi loolu lan la lay def parce que li nga joxañ ne dafa tëddee njaaxaanaay mooy comité bi nga xam ne moom mooy réguler wàllu courant bi bokkul ak euh, consommateur ñeneen ñi lu ñu waxee loolu lan lay def ci yéen euh, euh, ngeen représenté askan wi et vous ne parlez pas langage ñan a représenté askan ñun ñi ñu ngi nekk ci ñun ñi nga xam ne loolu bokk na ci li tax ñu ne fédération d'accord mooy réduire boole mhm. nit ñi Euh, association yi ñu nekk benn pour les questions majeures yi nga xam ne war nañ ci wax ñu bokk ci kàddu. Mhm. loolu nga wax bokk na ci li tax ñu def fédération. d'accord bon euh, loolu moom lu dëgg dëgg nga wax kii day gisee nii kii gisee nii waaye war nañu man fexe ba ci suñu biir ñu waxtaan ba gisee benn gisee ñun lu ñuy gis ñun fédération sénégalaise des consommateurs mooy que CRSE euh, commission régulation ñoom ñu ngi def seen liggéey ni ñu ko war a defee loolu la ñu gis ñun. Mhm. d'accord alors Dimet am nga laaj mais xam naa da nga koy denc ba ci kanam le temps ñu delluwaat ci honorable parce que voilà <laughs> comme comme noo ko waxee sànq am na coppite yu ñuy indi fële ci assemblée est-ce que tey mën nañu jàpp ni que ci sept ans yi ñu weesu yéen da ngeen amoon ay jafe-jafe pour contrôler action au gouvernement bi waaw amoon na jafe-jafe xam nga booy xool aussi tamit nee naa la référendum bi bi mujj mhm. moo may sañ-sañu léegi ñu def ko ci constitution ne assemblée dina wote loi dina contrôler action gouvernementale mais loolu amu ci woon contrôler action gouvernementale même su fekkee de fait dañ ko daan wax amul ban texte bu leen ko mayoon loolu moo tax ma ne la boo xoolee ci règlement intérieur euh, bu bees bi nga xam ne def nañ ko organe yi la liggéeyoon organe boobu am na benn comité boo xam ne moom la ñu dénk lépp loo xam ne mooy évaluation des politiques publiques mm-hmm. nga xam ne dina mën di saytu liggéey bi nga xam ne gouvernement bi moo koy liggéey di man di déglu aussi tamit yenn ministres yi di exercer pleinement son pouvoir de contrôle. Mhm. comme ni muy amee ci parlement démocratique yëpp. parce que loolu xëy ñu dañ ko yéex a tàmbali. Mhm. mais am na dëkk yu bari fii tàmbali woon nañ ko di ko doxal am si expérience. Mhm. man maa ngi fàttal ko rek euh, bi ma benn mission bu ma sonn dem dans la cadre de la francophonie parlementaire j'étais avec un député de la RDC. Euh, def suñuy travaux mu ne ma kaay gunge ma suñu ambassade parce que damay dem defi ju contrôle inopiné c'est-à-dire donc comme votel nañu ambassade bi ba dote ko ay budget ñun suñu loi may nañu ñu ñëw sans le prévenir ñëw ñëw ñëw directement rencontrer ambassadeur bi dam demander ko élément d'information yiy bëgg yëpp te mu am njariñ si suñu exercice de control mm-hmm. loolu am na ay dëkk yoo xam ne Afrique àgg nañ fa mais ñun tàmbaleeguñu ko ñu ngi koy doog a door ba taxawal comité boo xam ne à l'interne au niveau de l'Assemblée nationale te am nañu aussi tamit possibilité même outiller ay experts si yenn questions yi ñu demee ba xëj na ni ñuy saytoo am na ñeneen ñoo xam ne ñoo si gën a seen xam-xam moo si gën a xarañ mhm. assemblée am na sañ-sañu dem ooy yu ñooñu pour que ñoom ñu àndax ñoom si liggéey bi mhm. pour que ñu mën a def exercice contrôle boobu alors tey jii euh, ci 2019 ci treizième législature bi est que tey xel mën na nangu ñuy ñëw di gis assemblée boo xamante ne nii loi bu fa état bi andi rek ñu ne ko d'accord voté ko majorité. mais ça dépend xam nga loi nee naa la c'est-à-dire il a pas une opposition entre euh, le pouvoir législatif ak le pouvoir euh, euh le pouvoir euh, législatif waaw le pouvoir exécutif gis nga boo demee dans tous les grands parlements aux États-Unis mais le président Trump dafa am majorité ñoo majoritaire actuellement Sénat tu as vu le débat qui actuellement en cours mm -hmm. sur impeachment bi donc c'est dire que ne euh, boo demee France la même chose majorité toujours pouvoir bi di diriger da koy soxla mais la am solo mooy député yi ko si yi ko may ma rek waaw may ma rek ma eggal may ma may ma ma eggal député yi ko xam ne ñoom ñoo ko toogal majorité bi am mat boo xam ne li ñuy dogal ñu xam ne askan wi lan moo si njariñam mhm. bu ko exécutif indilee liggéey mu mën ko saytu xool lii lan moo si njëriñu askan wi mu def ko. mais mat bi ci nag te du ko tere mu jàppale ni mu war a jàppale ni mu war a jàppale peut-être euh, majorité bi mu jàppale. déjà am na ñuy wax ni dañu war a changer mode d'élection député yi. parce que gis nañu ni député yi bu ñëwee assemblée seen parti lañ fay toogal. mais toogaluñ fa askan wi. oui non non loolu mën na nekk c'est-à-dire loolu bokk na si ay réformes yoo xam ne war nañu ko xalaat xam nga mhm. booy xool il peut-être euh, vingt si ginnaaw. man maa ngi fàttul ko bu njëkk booy bu booy voté laajul loon carte d'identité da ngay dugg si bureau de vote bi rek ñu ne la bisimilah yaa may dégg teg sëriñ euh, teg imam mu toog ah nga xam ne boo ñëwee loolu am na fi Sénégal mhm. donc euh, système bi nag di évoluer di évoluer je pense que ne actuellement am na yoo xam ne man fa laa jàpp ne dinañ fa egg ci mhm. parce que ça devient de plus en plus une exigence population yi ñooy bëgg yaa ngi dégg askan wi nga xam ne déjà ñoom la ñoom la député yi di exercer seen sañ-sañ. ñoom ñooy bëgg parce nguur yi bu ñëw la même chose la ñuy wax que ni assemblée bi li fi nekk war nañ ko mais assemblée booy xoolee par rapport man ak législature bi parce que li progrès bi mu am mooy benn tradition simultanée amu amu amu foon ñaareel ba gis naa ne aussi tamit si texte yi amélioré nañu lu bari si biir texte yi même su fekkee application ci ban texte ci ban texte mais texte yi assemblée nationale naturellement c'est le règlement intérieur. c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. aujourd'hui dama lay dama lay dama lay jox seen bopp gis nañ seen bopp parce que askan wi li ñuy jooy mooy député yi dañ fa toogal seen bopp toogaluñ fa askan wi. askan wi mooy loi yi di doxal pays bi président ba lay engagé di wax ak beneen réew. xam nga léegi ñu ngi wax léegi ci initiative parlementaire nga maa la ko ñaan honorable ñu ngi wax léegi ci initiative parlementaire mais tey jii par exemple ci commission d'enquête parlementaire nga xam ne tey bëri na lu euh, ay ay questions yoo xam ne askan wi ñu ngi ci xaar ay réponses te saisiruñ ci par exemple. mais est-ce que xam nga commission d'enquête lan moo ko tax a jóg ba noppi. article 48 bu suñu règlement intérieur moo ko wax article 48 boobu li mu wax dafa ne suñu demee ba mu am lënt-lënt boo xam ne peut-être euh, ñor na askan wi assemblée am na sañ-sañu taxawal commission d'enquête. kon lu ñuy xaar ci mbirum pétrole bi waaw may ma rek moo wax la c'est-à-dire donc mhm. léegi bu ñu taxawalee commission d'enquête mhm. commission d'enquête mission mi ngi jeex bu defaree rapport am ba ñëw indi plénière soumettre ko assemblée nationale assemblée nationale mooy décider nag maintenant ndax rapport boobu dañ koy publier ndax aussi tamit dañ siy jël yeneen yeneen matukaay ndax aussi tamit day dem nekk à leur niveau information boo xam ne dañ koy partager man xam na lan laa doon xaar nga wax ko peut-être te loolu moo gën a ñor askan bi mooy peut-être devoir de redevabilité ñuy am possibilité de pouvoir rendre compte loi yi ñuy jot yëpp exécutif loolu mooy devoir am. exécutif mënul doxal mënul doxal dara yaa ma dégg te tëralu ko si loi. loolu am na solo waaw mais pétrole bi nga xamante ne nii dégg nañu askan wi boobu ba léegi ay weer weer ñuy yuuxu di laaj transparence ñi di wax sax di tudd di turu nit naan ko suñu 400000 loolu jarul commission d' enquête ci assemblée nationale. ma ça dépend ça dépend ça am na dañ koy apprécier rek. ça dépend c' est à dire dama ne. su fekkee peut être loolu dafa dugg si loxo justice xam nga règlement intérieur assemblée dafa wax ne. commission d'enquête parlementaire ñu ko taxawaloo tey procureur bi déclanché ay enquête immédiatement commission boobu dafa war a mission day jeex cela veut que ne actuellement pétrole boobu yàgg nañ ko wax dégg si ay plainte ñu ne plant am na si kon nag su fekkee plainte am na ci ba nit ñi di wax ne procureur saisir nañ ko mais assemblée amatul sañ-sañ taxawul taxawul commission parlementaire parce que loolu loi bi moo ko tere. ci mbirum dégg nañ ki tamit ku ci mel ni Hélène Tine bokkoon ci législature bi mujj tamit taxaw wax ni assemblée nationale peut ñoom député opposition dañoo amul doole mais bu ñu amoon doole ba tey jooju loolu tamit tulluwaat nañ ko ci table par exemple. xam nga yaa ngi may wax lu xewoon douzième législature euh, xam nga man day dima xam na ñun c'est-à-dire da ngeen war a dimbali eh, askan xam ngeen li ngeen war a dimbali askan man dama jàpp député yi peut-être mën nañu euh, am moo tax waaw mais nañu tontu ci question waaw ma ñëw rek waaw booy même bu dee euh, xam nga ñu mën nañu voilà xam nga gis nga seen émission bi li tax mu am solo discussion interactive la mhm. mën nañu enrichir unte si loo xam ne xëj na dina yombal askan bi parce que yéen da ngeen am responsabilité pour informer askan bi du dëgg moo tax ñu woo la donc moo tax ma ne tëggoo passé na waaw ci euh, législature bari la bokk mais ba tey c'est c'est d'actualité waaw non attends xam nga da nga may wax waxu Hélène Tine Hélène Tine man fekkuma ko assemblée. man bi may nekk onzième législature. nekk ko fa mais loolu yëpp ça importe d'accord mais quand même ba euh, moo tax man la foofu laay tibbee quoi. question yooyu noonu est-ce que jaroon commission d'enquête parlementaire. mais ça dépend xam nga wax naa la sànq nee la commission d'enquête dañ koy apprécier c'est-à-dire donc am na ñoo xam ne ñoo koy saytu. Mhm. ñoo daa jekki ne telle question su fekkee justice dugal si loxoom ñoom am nañu pour jël commission d'enquête xam nga boo gisee sànq mën na la man tey su fekkee réforme yi ñu war a song may nañu sañ-sañu askan wi ñuy bind lettre de pétition li ngay wax doon na rek law su amoon une commission permanente nga xam ne liy song saxlu as parce que gis nga difficulté bi assemblée am yëpp mooy li ma lay wax c'est-à-dire l'antiparlementarisme bi mooy askan bi c'est-à-dire dafa am benn amul benn passerelle bu ab diggante ni assemblée di fonctionner ay règles am di ko mm. pense que dans le souci c'est-à-dire li nga xam ne am nañ ko en perspective di ko defar di tabaxaat règlement intérieur bi dina bokk xalaat bu mel noonu ñu tabax ko nga xam ne tey dina am commission permanente boo xam ne su problème yu mel noonu amee askan wi am nañu def pour pétition saisir commission boobu commission boobu mën a tamit def requête pour que ñu mën a taxawal sinon ñu taxawal euh, commission parlementaire alors honorable dénk finance Abdoulaye Daouda Diallo mu wax ne c'est une farce de dire que les caisses de l'État sont vides maanaam euh, naxaate la ngay wax ne keesu nguur gi amul koppar est-ce que tey bu ñu gisee yokkute courant bi ñu bëgg ko teg ci bopp askan wi parce que nee nañu Senelec li mu am ci ay jafe-jafe dafa bëri nguuru Sénégal mënu ko jël en charge ñu wax ne loolu am na Sénégal nguur gi amul xaalis ci biir GAFAM waaw xam nga ñun bokk ma si nguur gi d'abord lu ñu bokk ñun su suñu devoir mooy euh, institution la boo xam ne day contrôler lii nguur gi di def du dëgg nguur gi moom mooy dem uti ji ay recette interne ak recette du dëgg ña yor recette externe ak interne ñoo mën a xam na am na xaalis mbaa déet mais l' essentiel mooy xaalis boobu parce que ñun parce que loi loi bi loi dafa may mhm. dafa may nguur gi bu ko mayul woon c' est à dire si loi la ñu sukkandiku pour ñu mën a dem collecter ay recette mhm. loi bi moo ko may aussi mu dem àbbi ji xaalis c'est-à-dire recette externe ñu dimbali ko mhm. loolu mooy devoir parlementaire pour mën a permettre surtout nguur si buggee liggéey ut xaalis mu mën a ut xaalis maintenant ut na xaalis am na ou bien amuma loolu xam nga ña nekk ministère bi ñoo ñoo siy répondre mhm. mais li am solo mooy bu fekkee exercice ñëw na ñoom dinañ ñëw ne seen prévision xayma na ne dinañ am si recette er, er, interne lii lañ siy am recette externe lii lañ si am boo ko xaymaa war mu war toll si actuellement quatre cent quinze milliards. Mhm. quatre mille ñu jël ko séddale ko trente deux ministères jël loo xam ne aussi dañ ko jagle ay dépenses communes. ren ñu indi daa jekki ne dinañ def budget programme budget programme mooy actuellement au lieu que xëj na tey boo tëralee propos ku si nekk léegi en fonction programme yi ngay présenté si lañ lay jox crédit boo ko liggéeyee nga xam ne après day am ay indicateur de performance nga xam ne dañuy am obligation de résultat loolu assemblée tamit jël ay dispositions taxawal benn comité boo xam ne moom mooy def évaluation publique fas yéene si ànd ak ñoom. Mhm. donc loolu je crois que effectivement xëj na assemblée loolu mooy loolu mooy warugaram parce que bu fekkee nit ñu comprendre ku si nekk exécutif lii mooy rôle am. Mhm. législative lii mooy rôle mhm. euh, judiciaire li mooy légitime. moi je pense ne mën na bañ a am confusion. voilà donc euh, loolu on nous a fait signe depuis tout euh, si daje bi. di yaakaar ne xëj na dina jariñ askan wi te ah, dinañ am possibilité encore si yeneen daje ñu dajewaat en tout cas ñu leen encouragé franchement si seen taxawaay parce que aussi tamit euh, devoir bi ngeen am di éclairer euh, lanterne population yi lu am solo la mhm. je crois que ñu ngi leen si encouragé en tout cas di tamit euh, seen directeur général merci à vous imam yow itam ñu ngi lay remercier ci sa teewaay man maa leen di leen gërëm lii parce que lii mooy askan wi yéen askan yi ngeen fi nekk ñun moom lañu fi nekk donc te askan wi pour mu mën i il faut mu xam yaan yéen ci leen nekk kon ñu ngi leen di remercier et di lancer benn appel rek appel boo xam ne ñu ngi koy lancer ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy kilifa te ñu nangoo tëggu ci ñoom que nañu fexe lu ñu mën a def rek nañ fexe ba ci wàll lii nga xam ne moo xaw a yëngal réew mi nii mbirum électricité bi ñu fexe ba ñu xool fan lañ koy jaare ba mën ko régle ba réew mi dal nit ci nekk ci jàmm te loolu jàpp naa ni. Mhm. ku mel na en tout cas bu amee bu fekkee lu mën a nekk la. Mhm. gëm naa ni ku mel na. Euh, son excellence président Macky Sall doon ko def. Euh, euh, on l'espère tous en tout cas merci ci seen teewaay di remercier également nii di met Ndaw ak Fatou Abdou Ndiaye ñoom la ñu ondaloon tey ñu jox leen euh, rendez-vous demain incha allah même heure mais en attendant ñu bàyyi leen ak Néné Aïcha Ba pour flash d'information.